ma nekk ci yaatal boobu ba tey tubaarkàlla macha allah moom li ma neex moom moom boo ko dee liggéeyal daf koy xam mag laa waaye fexe naa ba góor góorlu ba daayira yëpp ñëw. mel ni euh, da ngeen di waajal bés bi euh, nan ngeen ko fas yéene waajalee ci wàllu organisation. bernde yu doy bernde yu doy dina am ku fi ñëw doo bu xiif. loolu moom maa la ko wax man sama waañ maa ngi koy exposé Grand ñaatali képp koo xam ni ci man nga bokk sol weer blanc danga may fekk ci naat bi ma baas lal ay basang toog loolu laa bëgg a bi tamit noonu lañ koy doxalee. ah waaw xale yi dama leen a gërëm waa bopp ngeen ñoom waa bopp dama leen a gërëm ndax seen yaay laa. ndax dama nu ànd ak seen yaay kon bu ñu defee lii tey dara du asaar seen yaay rek laa daan àndal di politique waaye mbakki yu fay moo tax ma bàyyi politique ànd ak Serigne Touba rek kon nag xale lu ñu mën a def rekk dara du asaar ma may maay seen yaay yal na leen Serigne Touba baddil te fay leen gën di pay maa ngi tudd Soxna Kange Dieng dëkk bopp Ricard ñuy lancer appel rek. comme li ko sama yaay gàmmu joo waxee ñu dage fii ci Masaalikul Jinaan di woo suñu mbokku jullit yi ak suñu mbokku taalibe yi ñu ngi woowaa bopp un rue dañoo bëgg ñu dage set setal bopp ndax gan gu tedd la ñuy am bëgg a ganal ganal sëriñ yi dalal leen te aw gan nag boo leen di dalal da set dëgg la ñu wax ci waxi benn yi dina neex tubaarikàlla dana bari woo nan ñëpp un ba neuf woo naa usine ñaari tali gëm a juddoo yaroo fa màggee fa di yeewoo bopp bàyyiwuma kenn bàyyiwuma daara daa daayira marché ngelaw damaa bëgg ñun ñëpp ñu dage bu samedi ak dimaas seetal sunu gox commencé ko ñaari tali ba bopp ba Masaalikal Jinaan na fépp set ba bu gan ñu ñëwee ku tàllal sa sigaada mën a julli asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu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 ja